di gërëm it sa ministre de l'intérieur ñëw na waaye ñëw na ñëw na ànd ak yow waaye ñëw na te moom dañu ni dooley jën ndox moo mënul dara amul dara xamul dara yow yaa man yow la réew mi wóolu teg la fi yàlla teg la fi yaa koy jox ay directives yaay clé de voûte de toutes les institutions yaay définir la politique de l'État dans sa globalité yow yaa yor le budget di ko di ko distribuer kon lu ci waay def yow la kon bu defee dara yow la moo ñu defal tànt bi jar na lu ëpp million millions yónni fi xaalis say xarit yoo xam ne bëgg lu la neex ñëw fi ay Umar Sow ak ñépp ku ci ne indi na fi teranga te yow rek a tax loolu duñ ko wax buñ ko waxul soxor buñ ko waxul iñaan te ñun soxoruñu iñaanuñu yàlla na la yàlla fay